président Macky Sall jël dogal jox 20 hectares fi ci euh, asset bi bi mu ñu 20 hectares donc ñu liggé ko ba mu paré ba dara desul lu xaar avana bi ñew pour que ñu séddee le terrain yi victime yi euh, ci surprise bu mag le gouverneur Dakar woté lundi passé xamal nañu état bu Sénégal décision bobu mu jëloon ba joxoon len fa 20 hectares té mu bindon ko jaralé ko ci ministre Birima Mangara décision bobu changé nañ ko manam 20 hectares yi dañ koy nangu ci yeen biñ ko demandé lutax mu né dañ koy déllowat CIPRES bi victime yi ñëwee aussi xeyna Euh, euh, ñenn ñi mën nañ téye seen bopp mais ñenn ñi mënuñ téye seen bopp parce que fi leen affaire bi yegg moo kawe te njortu naa ni bu ko état bi gaawul réglé dina am dem dinañ dem beneen étape bu gën a kawe bi parce que victime yi tey victime yi tey victime yi naam que traîné nañ ak ñun état bi traîné nañ ak ñun di ñu dégg recensé ñu war ñu fay impense gisaguñu dara trois ans victime yi egsi nañ ci étape boo xamante ne mënatuñoo muñ dara président de la république kenn saxalu ko lem kenn saxalu ko suukar mu ne pour dédommager leen dina len jox 20 hectares boobu ak léegi nak mam boy diawo mo ngi len di këlli këllee boobu ak léegi nak état du Sénégal mo ngi len di fowé boobu ak léegi nak mo ngi melni état du Sénégal fas yéenewul sàmm kaddu bam or kaddu président de la République du kaddu Guy Marius Sagna du kaddu Doudou du kaddu Fatou li ñuy wax président Macky Sall mooy gor ca wax ja li nga xamné mom la wax wa tiawone Peulh manam 20 hectares yoyu mu waxone ne daf leen kay jox ba jamono yi passé gouverneur bu Ndakaaru génn ci ba mu set wécc dina dina ko jox waa pël ci nii wala ci naam ñu jàpp nag ne li nga xam ne moom la ñu def tey mooy tere manifestation waa Tivaouane du dëgg du yoon fii ci Rufisque dañoo jàpp ne dafa jot tey jii nii ndaxte samba ba yooyu di caxat-caxatee suñu suuf faw ñu def benn say boo xam ne duñu mën ci ñun dara te président Macky Sall dinañu delloo tey mbaa suba suñu vingt hectares